ni ko te damaa taxaw wax ko ca mars 2021 ni ko nee na maay sëriñ waaye lépp loo xam ne man jomm naa ko def moom jomm na ko def ci kanam loolu suñu taxaa laa ko wax waaw ne ko nag eh, li ñuy wax nag man du mën a def ko waaye góobu ne moo ko def te buñ mën ne loon kan mën a waat di loolu loola itam dem nañ ba eh, histoire war na ne loolu amul mhm. boo seetlu tam ba àdduna sosoo ba léegi képp ku suñu borom nar a yeggloo fenn rek dana la teg ay natt. suñu tubaab yi nga xam te ñu ngi koy waaj a màggal la 4 septembre wala la 5. tey fa mu jaar ak li mu daj ciy coon. Mhm. ay suñu réew ni mujj tey. Mhm. Ousmane Sonko bi dem mbiram naroon na ak si moo tax suñu borom andiloon ko gàllankoor yi yu mel nii. Mhm. yàlla mi ko tegoon dam dimbali ko ba mu am xolum muñ ko. ak njabootam am xol bu mbiru yàlla moo demee noonu ku mu bëgg a liggéey loo rek wala ku mu yan rek moom moo lay téeñal mhm. dina xamal ni mbir mi ab tool la mhm. ñëpp ñoo ci bokk di bay mhm. waaw parce que moom tool la boo xam ne ku ne ci tool bi rek yàgg ñëpp bokk bokk mbay bi di bay li bay nag yàlla na yàlla dogal mu ñor te bu ñoree nag yàlla na ko Sénégal yëpp jariñoo comme ni ngeen ko waxee nii daa am na ku ma ko wax tey suba ni ko man de léeg-léeg nit ñi dañ may jaaxal sax ni ko man fi mu toll nii yàlla xam na ni mu ma ci au ma leen loo xam ne dama naan bu Ousmane Sonko nekkoon président si mu changé si biir xalaatuma sax loolu man li may yéene Ousmane yal na ci réew te bu jotee ci réew yal na ko defar. ba ñu yaakaar ji ñëpp am ci moom rek. nit ñu tëj suñu bët te am ci yaakaar ndax nit ki soo ragalee yàlla xam ne loo def fii da nga ko da nga ko layoo ëllëg di bàyyi xel loolu. du loo du loo neex def. Mm-hmm. loolu lu jar a bàyyi xel te damay wax ni Sénégal war nañoo dem ba jamono yoo xam ni magistrat bi wala commissaire de police wala ku mën a doon war naa mën a att li nga attal par dem jëli ci jàkka yi saa yu ndeel ba am ngëm-ngëm woowu rek ñu caageen lu neex waay def ñaare nag nit ñi li ñu jàpp ni Sénégal mooy tekki mooy am oto yu rafet am am am kër yu rafet ci xaalis bu bari ci bànk loolu du tekki loolu am am rek la te amul benn njëriñ tey barki dem dafa am dem hôpital bu ma romb hôpital ba kéemaane loolu waa ji dama ko expliqué ci ibis ni ma bii moo doon bu njëkk bii mooy bu bees bi yëpp bi ma ma am lu ma yëg sama kii ma ne ko ma ne kenn waxuma ko dara bañ ne su hôpital bi man sëñ bi dama laa ne hôpital baa ngi ne te waxoo ci dara ma ne ko li may xalaat man du loolu li may xalaat man ñii ne ci oto bi ànd ak suñu ba nga di ma ko wax ñu di yor nañ milliard nekk te mën na yëkkati waxam ni ko nii man loolu laay xalaat. moo tax bi ma ko waxee waxu waxuma loolu. am na ñu nekk ci biir ñoo xam tey luñ mën a am wëral leen ko gënal. luñ mën a ci banque xamatuñ luñ fa denc. kon mbiri àdduna yëpp noonu lu mu bari bari rek bis day ñëw nga bàyyi ko fi. waaye nag képp koo xam ne lii Aliou wax ni képp koo xam ne yàlla dimbali na la ba tey. bu ëllëgee bu senegal di soppeeku. nga mën ni sama loxo wala sama kàddu dem na ci loolu cant la war.